وهل ألبسن خلع الهمام مكملا رفيعا ويأتيني الذي هو منيتي هل يجليا عن الفؤاد ريونه فصار كنبراس إله البرية هل تشرقا شمس العرفان جهرة بقبلة قلبي دون شك ومريتي هل تمطرا صحب المعارف وابلا بأرض فؤادي حائزا كل قنيتي هل لي شهود عين عين إلهنا بعيني حسا فائقا أهل نهيتي نعم. وهل يكشفن عن الفؤاد غواية فأملئ خوفا مع رجاء وخشيتي وهل أجلسن وهل أجلسن يوما أطاف ككعبة بأنواع إحسان بصدق الطوية وهل لي أداء الفرد عند محصب في تيبة الهادي عليه تحيتي وهل أرتقي فوق المقامات واسلا إلى الله متبوعا بنفس زكيه نعم. وهل لي نجاة النفس من شر حاسد إذا حسد المحساد عني لبغيتي نعم. وهل لي اجتماع الشمس من غير فرقة أظل بتعليم بتخليص نيتي نعم. وهل لي حوزي كلما كنت طالبا من الله أم ليس البلوغ لمنيتي صلاة وتسليم على خير خلقه وآل وأصحاب وقطب البرية دعنا ولو wala أيضا بتي na ko ay الله ba tey zaadu yàlla bàyyi na yëg alaa yëgal lay tachien yi yelantu koon sama xam xalaa fuusu manax dana ma texe biru yeti sama gis muxiya rasulillahi kanama yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam daalika loolu mooy gis yonent bi bu xeeti mooy sama càkkutéef ndeysaan lii lépp na daf lay wan li nga war ku mën a jàngale na moom Cheikh Ibrahima radiyallahu Cheikh Tidiane da daan def bu daan tudd ak mbir ci boppam daf naan benn waaye rek lay wax dégg nga nit yàlla yi bu ñu leen jàngale dañ leen askane mbir mi seen bopp fekk dañ yow rek la ñuy jàngal bàyyi nag fii ay mbébét lay joxe di la jàngal yow li nga war a mbébét ak li nga war a wut li nga xam ne mooy càkkutéef bi nga xam nii nit ko am xel war na ko wut mbébét bi mu njëkk wax ne moom la mbébét. mu ne yelanti koon ma xam ndax yàlla dana ma may ma gis kanam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa xam ne képp koo gis rek te xaar yi ci yow moom nag gis ak jënoo lay wax mu ne loolu mooy sama càkkutéef kon yow it lool loolu nekk sa càkkutéef mooy gis kanam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw fii ci àdduna nag la ñuy wax ndaa laaxiraa ñëpp danañ ko gis waaw gis ak aarifoon yi nag tamit nag mooy gis gi gën dëggu ci gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dana gañe texe ci gis gi ma gis kanamu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax loolu danaa ko am yonent bi wax na ku gis ci nelaw moom nga gis ndax seytaane du meloo meloom wax na ne ku gis ci nelaw da nga ko gis ci lu dul nelaw dégg nga te ku ko gis rek moom yonent bi te xaadi dañ ci yow bàyyi ne ndax man danaa gis yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam kooku xam na ko wax na ne gis na yonent bi sax ca bari euh, Paris euh, dégg nga kër ak gis na fa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon gis na ko fu ne moom te yonent du tàqalikoog moom ba mukk rek laa wax de ndax képp ku yegg ci maqaama xutbaaniitu doo tàqalikoog yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te moom romb na foofu waal albasan ndax danaa sol xalaawul xumaa mi simmeeku sang ba te mooy yonent ba war a Cheikh Tidiane kuñ matal rafiyaan daa ji yëkkatiku wayaati nii tam dikkal ma lazi li nga xam ne woo moom mun yëti mooy sama mbébét ah mu ne ndax danaa sol simitu sang ba te nekk ku mat dañoo wax ab sëriñ maqaama bu mu yéeg rek ba nekkoon si mbitim la taalibeem bi ko sës koy solal taalibe bu góorgóorloo sëriñ saa yu yéegee maqaama rek maqaama bu mu jugee dana ko solal taalibeem dégg nga si mbitu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nag sol na ko fu yonentu di yonentu rek maqaama bu yonentu yéeg rek Cheikh Tidiane dégg nga yéeg na fa ndax bu yonentu fu mu yéeg rek solal na Cheikh Tidiane maqaam woowu comme ni nga xamee ne fu yàlla di yàlla yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo fa yonentu ku yàlla di sa borom rek yonentu bi mooy sa yonentu dara teqalewu leen daal lu mooy kii joxe kii la jox diggante Cheikh Tidiane yonentu bi sallallahu alayhi wasallam noonu la mel ci mitu yonentu yëpp maanaam maqaama yonentu bi yëpp kooku Cheikh Tidiane sol na ko kon amaana sang bi fii nag Cheikh Tidiane la ci namm mboolem lu Cheikh Tidiane simmi nag kooku Cheikh Ibrahima koy sol gannaaw Cheikh Tidiane ma yëpp ci moom lay jugee tëbb yëpp ci moom lay jugee mboolem ko am ci yàlla dara rek ci moom nga ko jëlee nga xam ko nga ñàkk koo xam muy bébét nag bébét goo xam ne yàlla defal na ko ndax danaa sol simmitu sang boobu mooy maqaama bu Cheikh Tidiane yéeg rek ma nit yàlla jox ma ko ma nekk ku mat nag ci maqaama boobu koo xam ne manqué wu ma dara ndax mboolem góor yàlla yi xam nañ may gaa waaye nag am nañ ak côté bu ñu dajaluñ lépp dara ci may rek moo feeñ ci moom ñoom waaye moom nag bëggul lool li bëgg mboolem may yi Cheikh Tidiane yëpp mu jël ko. Mm, te loolu mooy jël mboole may may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku yëkkatiku daraja nag ku yëkkatiku mooy kan mooy koo xam ne nii mboolem kuy wël lii rek yaa ko tiim gannaaw moom moo lii yëpp loolu yàlla may na na wax sax na si njëlbeenu seyroom dem na di laajte nu ko Cheikh Tidiane sutee waaye daal xam na ne wasaatatu gi ndax Cheikh Tidiane mooy diggante ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu rek moo di sut gi loolu mu la bëgg a jàngal dafa laa bëgg a wax ne diggante ak Cheikh Tidiane amul benn différence amul benn teqale lu mooy ne ko jox moom la jox loolu rek waaye lu lu Cheikh am am na ko diggante Cheikh Tidiane la mel lu yonent am yëpp jox ko Cheikh Tidiane loolu nag ci rek arif la mm. woo ci bokkul nga mandu mooy ndax danaa yéeg ci maqaama boobu nag xam sama mboolem càkkutéef lépp lu may mbébét rek mu dikkal ma wala boog suma ma yéegee foofu wayaati nii dina ma dikkal alladi li nga xam ne moom mun yetti mooy sama mbébét mm-hmm. mooy la yàlla wax ci jaam yu teddi mm-hmm. lawum eh, maa yashaa'uuna inda rabbihim luñ bëgg seen borom rek yàlla defal leen ko mm-hmm. mm, lu leen soob rek yàlla jox la ko kooku mboolem jaamu yàlla yu tedd yi am nañ loolu rawatina ku yëg ci maqaam bi bàyyi di junju ndax danaa sol simmitu sang ba nekk ku mat ku yëkkatiku sama mbébét yëpp daal li ma dikkal ndax loolu danaa ko am am na ko ndax dana wax ci kanam léegi ne laqad jaani ma lastu axsibu faddatan alayhi salaatun suma yàlla jox na ma loo xam ne foogu moon ne sax danaa ko am ci ngëneel kon moom xam na loolu ba am raw loolu waxoon na ci bayti ci gannaaw ne waniltu marumi mm-hmm. fa bittu raayi najma an siju mm-hmm. waat wi bil bii da waniltu marumi mm-hmm. marumi mooy lan mooy am naa sama càkkute yëpp kon lii muy bébé am na ko waay yow it fexeel dara ci baay nga mbébét di ko sol ndax simmit boobu mooy simmiti yonent bi sallallahu alayhi wa mooy si mbiru Cheikh Tidiane mooy fexeel rek ay jikkoom nga jikkoo ko ay maqaamaam la nga ca mën a la nga ca mën a gàddu nga gàddu ko kenn mënul gàddu yëpp nag xal yu li yenn ndax dana ndax dana namm ndax dana wuññi xañil fu aadi walis xol bi ay gàkk gàkkam ndax dana dindi sama xol mboolem tirim tirimi xol ah loolu yàlla defal na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon foo mu defal ko Cheikh Ibrahima yonent bi yàlla raxas na kolom dind cërëb seytaane bi nga xam ne loolay gàkk gàkk xol yi dind na ko ci moom moomit it muy bébét loolu ndax yàlla dana dindi gàkk-gàkk xol yi ci sama xol ba nga xam ne nii fasaara mu mujj moom xol boobu ka nibraasi ilaahil bariyati mel ni làmp bi yàllaay mindee fii maanaam xol bi mujj leer naññi ci xam yàlla ak bëgg yàlla ak gëm yàlla ba mel ni làmp yàllaay mindee fii ah làmp bi yàlla yi xam nga mooy ñiital ñëpp kat waaw ci moom lay ñëpp di ñiite ci moom lay ñëpp di leerloo kon nag moom su mbébétee xolam mel ni làmp boobu mooy mu ngi mbébét xolam dem ba nga xam ne ni mooy tëbb mboolem wujud gi mboolem xam gi rek moo leen tëbb allahu nuuru samawati wal ya yàlla mooy leer gi nga xam ne moo xamal asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar ku koy leer ak yàlla ah ku mbébét nag xolam mel noonu kooku mbébét na lu rëy mm-hmm. mu ngi mbébét mbooleem jur gi rek mbooleem xam gi mm-hmm. tëbb yi ñuy ci yàlla jugee ci moom kooku maqaama boobu moom rek moo ko jegoo mm-hmm. moom lay mbébét nag wax na ci yeneen bayti ne matlabi ruqiya maqaami sama mbébét sama càkkutéef mooy yëg sama maqaama ma mooy maqaama bii rek de maqaama xol lay mbébét ndax dana fa yëg muy xol bu sell ba nga xamee ne xolam bu sell boobu mooy nandal mboolem mbindéef yi nandal na la képp ku yàlla bëgg mu nandal na ba nga yëg ne nandal na la ku yëgut sax nandal na la waaye yaa ko yëgut hal tushriqan ndax dana fenk shamsul ma'rifaani jëntab xam yàlla jahratan ci janoo bi xiblati xal bi si sama xiblaay xol maanaam jàkkaarloog sama xol doona shakkin ci lu dul waaw sikk wa miir yit nag werante ndax jantab xam yàlla dana fenk ci jublu ci sama xol nga xam ni sikk du ci am werante du ci ndax loolu dana am loolu am na ndax waxoon na ne waniltu maroomi maroomi jantab xam yàlla nag mën naa nekk Cheikh Tidiane radiyallaahu anhu dégg nga ndax moom moo di jant ndax dana fenk ci sama wàlli xol ndeysaan mooy ndax ma maqaamay Cheikh Tidiane yeeg may yëpp ak xam yàlla gi nekk ci xadaraam ndax dana wàcc ci sama maqaama bi ci sama xol nga xam ne sikk du ci nekk werante du ci nekk en kay mboolem timbiti Cheikh Tidiane rek moom jël na ko mboolem xam yàlla Cheikh Tidiane wàcc na ci moom Cheikh Tidiane mooy xalifa yonent bi waaye moom mooy xalifa Cheikh Tidiane it annani xalifatu Tidiane mawhibatan min Ahmad Adnani nee na man maay xalifa Cheikh Tidiane yi muy may goo xam ne mu ngi jugee ci Ahmad mi nga xam ne nii waaw moo gën ci doomi àddinaa nii ndax jën tab xam yàlla dana fenk ci janoo ci sama wàlli xol xiblatu mooy mm, fa jublu moom nag xolam mooy xibla bi mm-hmm. mooy jubluwaay bi mm-hmm. mboolem ku naan ci yàlla dara rek yàlla nga ci xolob ci Ibrahima boobu loolu nag moom ci ramaayu la yàlla ñu ko yàlla déglu hal tamturan ndax dana taw soxbal maarif yi niiri xam yàlla waa bi daan taw bu amee taw mooy taw bu rëy bi ardi fuaad ci sama suufu xol xaa isan maa ji làq ku la xinjitin bépp koom ndax dana taw taw bu rëy boo xam ne lépp ay xam yàlla la ci sama suufi xol ma laq nag sama mboolem mboolem koom rek ku lëqin yetin bépp koom mboolem luy koomi xam yàlla rek ak meññeti xam yàlla ma làq ko ndax loolu dana am dana am kon mu ngi mbébét suufi xolam yàlla wàccee ci ay xam yàlla yu rëy ba mel ni tawi waame waaye mboolem koomi xam yàlla googu ak njariñu xam yàlla googu feeñ ci moom xam yàlla da war a ak dund yàlla soo ko xamee dund ko nag meññin feeñ ci yow koo koy làq moom nag bëgg na xam yàlla googu yàlla googu waaw xam yàlla googu te mooy yàlla mooy gëm yàlla dëgg rek wala nekk jullit xaqan لولو واتي تي سو في قلم وهو قلم نك سو في قلم لا هل لي نح نيال نما شهود عين عين الهنا ما سيد جمي جمي سني يالا يالا ممكن اقم نموي كان عينو اك ذاتو دو بن جمي يالا اك جمي جمي يالا دو بن ndax yalla dana ma may ma seede ki nga xam ne nii hmm. mooy jëmmi jëmmi yàlla kooku maqaama Cheikh Tidiane la hmm. yonent bi moom mooy aynu laay hmm. mooy jëmmi yàlla waaye nag Cheikh Tidiane mooy maqaama mooy jëmmi yonent bi sallallahu alayhi ndax danaa ko mën a seede bi ay naye si sama ñaari bët xissan ci yëg nag bokkut ak seede ak fanaaw ndax koo xam ne nii balaa nga koo seede jeex takk yow ko nekkoo fa waaye nag moom li mu bëgg mm. mooy seede Cheikh Tidiane fekk mu ngi ànd ak yëgam te mooy doon ko rek la bëgg a wax mm. maqaama Cheikh Tidiane may Cheikh Tidiane yëpp ñëw ci maqaamam mm. faaye xan maa ji kawe nag ahla nuhiyat borom xel yi xam ni képp ku am xel rek maa la faree kaw te mooy képp ko xam yàlla rek maa la tëbb ki la tëbb ko wala faree kaw ah loolu la mbébét ndax yàlla dana ko yàlla jox na ko mm-hmm. ndax danaa seede ki nga xam ne mooy jëmmi jëmmi suñu yàlla mm-hmm. ci sama ñaari bët yi nag ànd ak yëg maa ngi fi nekk kawe mboolem ñu am xel ndax loolu danaa ko am am na ko mm-hmm. seede gi mooy ndax fu Cheikh maqaamam Cheikh Tidiane fu mu mën a yaatoo rek fu mu mën a nekk di Cheikh Tidiane rek ma wax danaa fa yegg yegg na fa waa léegi si fan ndax dana wuññu anil di waris xol bi xawaayatan ak réer ndax yàlla dana dindi sama xol bi ak réer te réer rek mooy yëg loolu yàlla ci sa xol fa um liyaa ñu feesal xol bi xaw fan ragal yàlla maa rajaayin ànd ak yaakaar yàlla wa xasiyatin ak toroxlul yàlla ndax sama xol yàlla dana ci dindi mboolem luy réer feesal kook ragal yàlla ak yaakaar yàlla ak toroxlul yàlla loolu yàlla may na ko hmm. loolu moom daf laa bëgg a jàngal ne loolu jaam bu nekk loolu na war a mbébét dégg hmm. yii nag am na ci mbébét yoo xam ne ci rek la moom hmm. am na yoo xam ne nag ku nekk war na ko waaw mbébét rek laa wax de wala aj li sa na ndax danaa toog yow man ab utaafu ñu di ma wër ka kaabatin mu mel ni kaaba ga kaaba ga mooy jubluwaay yàlla mhm. képp ku bëgg ku jublu yàlla rek mhm. fooy jublu mhm. kaaba ga xaj mooy mooy firi alxasdu rek jublu kuy jublu yàlla ci kaaba ga nga jëm daldi simmeeku ci mboole mi ñaaw téef terex laa lu weex tàll di ko wër manax ma nit bis dinaa ñëw ma nekk kaabaak baatin ga nga xam ni képp kuy jublu yàlla rek mën ngay jublu loolu yàlla may na ko ko ay maqaama lay junju tey ku bëgg a xam yàlla foo nga jaar ci buntam bu dul loolu da nga sonn ci yoon yi doo xam dara loolu la doon bébé daa yàlla jox na ko loolu may waxal ali san ma toog bis mm. utaafu mu ñu di ma wër ke kaabatin mel ni kaaba ga mm. bi an waaye ixsaanin ci xeeti rafetal bi ànd ak dëggug yéene mm-hmm. attawiya mooy yéene rek de nuñ may wëree mm-hmm. ay xeeti rafetal ànd ak yéene ju sell mm-hmm. loolu lañ bébét ndax bis dina ñëw ma toog nekk mel ni kaaba ga nga xam ni kuy jublu yàlla rek ma ngay jublu te ñi may wër yépp nag yegg nañ ci maqaama ihsaan maqaama ihsaan mooy ngay jaamu yàlla mel ni yaa ngi koy gis maanaam booy gis yàlla xaal bi nga war a yëg ni nga war a mel mm-hmm. eh, dégg booy jaamu yàlla nga mel noonu mm-hmm. te mooy nga fàtte sa bopp fàtte lépp rek laa wax de mm-hmm. doo yëg leneen lu yàlla ndax waxuma la sax yàlla waaye yonent yàlla yusufa rek ay jigéen gis nañ ko fàtte seen bopp dagg seen yaram yëguñ ko ndax taari yusufa fir yi nekk seen kanam ko ndax taari yusufa kon kuy jënoo yàlla moom foo nga fàtte lépp mm-hmm. lu ne xam nu métti manax mm-hmm. danaa dem nag ba bis ñëw mm-hmm. ma mel ni kaaba googu nga xam ne maa jubluwaa yàlla ci kaw suuf mboolem ñuy jublu yàlla nag ñëw wër ma ñoom ñëpp ànd ak ihsaan maanaam yegg ci maqaamu ihsaan ànd ak yéene ju sell seen i jëf ak seen wax lu ñuy def yàllaa tax lu ñuy wax yàllaa tax lu ñuy jëf yàllaay tax sell lool xam yàlla lool ñoom ñëpp raasi suma gannaaw mm. waaw ànd ak man ci yoon yàlla woowu mm. man ax loolu danaa ko am maqaam boobu am na ko mm. kaaba ga du ab xeet dafay jublu ku ñuul ku weex penkook soow fu nekk nit jógee na fa dem ci kaaba ga nit ak jinneeg ñëpp a ko wër moom it maqaam boobu lay bébét maqaam boobu am na ko loolu loolu fayda la rek ndax ku weex ak ku ñuul nit ak jinne malaaka yi yëpp ñu jot nañ ci tëbbam loolu moom ñu ko xam-xam nañ ko lañ ci mën a seetlu dara yow doomu aadama yi ku ne jugee ne fu ne ci àddina bi rek ñëw wër si ko maanaam ñëw wut ci yàlla ci moom waa ànd ak eh, yéen ju sell ak rafetal kooku moo xam nañ ñu jublu yàlla yëpp jublu nañ ko. وعلي لن يلما أداو الفرد جوخي أج عند محسبين فو محسب محسب مو فني ساني جمرا ندخ دنا جوخي حج تي محسب خمغنا كون قسيل مي داف مين ياغنا نا بوم دا مين اجو دنا اجي مكه دم تي محسب دي ساني جمرا كوغو يالا ماي نكو fi taybatil haadi yi ak ci taybaab haadi yi yàlla mooy mooy aji gindi ji alay yàlla na ci moom taxiyati sama nuyoo wala alay nekk na ci moom taxiyati sama nuyoo mooy maa ngi koy nuyu farataay xaj ak farataay ziyaare yonent bi moom ziyaare yonent bi moom xam na ne farata la mu ñàkk ci jàmm bi su ko mënee maanaam danaa dem ziyaare yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi koy nuyu moom yonent boobu maanaam danaa dem ba Makka ba sànni jamra ndax boo sànni jamra ba pare xaj gi pare na loolu tax mu tudd sànni jamra ya waaye li mu bëgg wax mooy ndax dana xaj màkk ba xaj ga pare ma joxe faratay xaj ndam ziyaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu yonent boobu ndax dana am loolu loolu yàlla may na ko ko wala artaqi ma ndax danaa yéeg fooqal maqaamaati ci kaw maqaama yi waa si leen di aji jokk ila laa jëm ci yàlla mat bu waan di kuñ topp bi nafsi zaki bi nafsin ci bakkan zakiyatin bi aji sell manax danaa yëg ci kaw maqaama yépp gis nga de waxul manax danaa maqaama sànganam sàngam mboolem maqaama yi rek ma nekk seen kaw fare leen kaw nga xam ne ku amati maqaama maa la ko jox loolu nga am cër la samay cër rek waaye loolu moom weesu naa ko luy maqaama bàyyi weesu na ko ndax dana yëg ci kaw maqaama yépp hmm. nga xam ne ni moom mooy joxe maqaama ya jokk ci yàlla nag waaw di kuñ topp ànd bakkan bu sell mm-hmm. ay bakkan yu sell rek ñoo koy topp ñu baax ñu ragal yàlla mm-hmm. ñu gëm yàlla ndax yàlla dana ko defal loolu yàlla defal na ko ko mm-hmm. dégg nga ndax yi dina ci kaw ma xaama yëpp waal lii ndax ñeel na ma ku dem ba ne xut bu yëpp suñ gëlëmee maa leen gindi ah te maqaam bi gën a kawe nag ci dund bi mooy xutbaan yi transement hmm. moom mu ko kaw hmm. kooku yëg na ci kaw maqaama yi hmm. ci yàlla nag ndax léppam yàlla moom jaamam yàlla la topp nañ ko kuñ topp la waaye di toppe wax na ne Cheikh Tidiane wax na ne góor ga feeñ na ci kuréel ga ba ñëpp gis ko te kenn du ko xam ci àdduna kenn du ko xam ci àllaaxira mu junji góor góor na ne mooma ne Cheikh Tidiane yàlla may na ko fu ne dem na fa nag nekk fa taalibe waaye yàlla may na ko taalibe boo xam ne fu mu dem moom dañuy dañuy jàpp ci moom waaye du jàpp ci kenn fu mu dem rek jàpp sëriñ loolu yàlla may na ko taalibe bi Cheikh Tidiane boobu di kon moom feeñ na ca kuréel ga ba ñépp seen ko te kenn mënu koo xam ci àdduna kenn mm-hmm. mënu koo xam xam ci àllaaxira fu mu dem rek ñu topp ko te ñu koy topp seen bakkan dafay sell mm-hmm. loolu yàlla may na ko mm-hmm. waa lii ndax ñu yàlla mën a jaatu naf si mucc ak bakkan bi min chari xaasidin ci ay ay añaan isa xasada bu añaanee almexsaadu ku bëri lu muy añaan xan nii ci man li buxeet yi ngi sama càkkutéef xam na ne lii muy sàkku ku ko xam rek danañ la añaanee ndax doomu aadama moo gën a bëri ak ak ak kañaan mm-hmm. yàlla sax mu ne buñ ko mënoon añaanee añaanee ko mm-hmm. am na sax ñu ko añaanee mm-hmm. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahud yi kañaan rek moo tax toppuñ ko waaye xam nañ ne yonentu la xam na ne loolu du ci mucc te ay ay añaan mën naa yàqee ne rek laa wax de moo tax mu ne ndax sama bakkan dana mucc ci ay ay jamono ji nga xamee ni ku bëri lu muy xañaan mm. mu ngi may xañaanee ngir càkkuteef gi nga xam ne maa ngi koy sàkku ci yàlla wala ngir jox gi ma yàlla jox càkkuteef gi mm. su ma amee sama càkkuteef ba añaankat yi ñëw nag mm. man xam danaa mucc ci ñoom loolu lu jëra ñaan la mucc lu jafe la dégg nga waxal lii ñeen la may ijtimaaw shamsi dajeeg jant ba min xayri furqatin ci lu teqali ko jàpp naa ne jant bi Cheikh Tidiane la manax danaa dajeeg moom te dootuma teqlikoog moom bay daa yoomi dini asal lu may yendu bi taalimin ci jàngale bi taxlisi niyetin ci sellal yéene manax danaa dajeeg Cheikh Tidiane dootuma teqlikoog moom foo ma fekkin maa ngi jàngale ànd ak yéene ju sell loolu yàlla defal na ko ko jàngale rek moo doon dundam dundam yëpp daf koo jàngale ba léegi ñam jamono wante woon ci ay kilifa li nga mën a jot ci ay waxtaanam ci ay njàngale mënoo koo jot ci waxtaanu kenn ci mag ñi rek laa wax de ay téere mag ngi nii bëri lool jotaay xam-xamam yi mu toog ak tafsiram kenn xamu nu mu toll tafsir na ci olof tafsir na ci arab jàngale na ba jàpp naa ne njàngale foofu la mën a yem ak njàngaleem daal fa la mën a yem kon loolu am na ko ndax danaa daje ak jant bi dootuma tàqale koog moom ak am na ko wax nga ne am naa ñaari sëriñ sama sëriñ ci zahir mooy alquran ak sunna amul ku ma ko gën a dégg kon yàlla may na ko loolu amul ku ko gën a dégg te mu ngi koy jàngale te yàlla rek tax jàngale googu yàlla rek tax rek waaw yéen ju sell ci lu ko defee waaye wax na ne sama sëriñ ci baatil mooy Cheikh Tidiane du ma tàqale koog moom benn géndee ko yàlla may na ko loolu du tàqali ko Cheikh Tidiane benn gendeeku waxal lii ndax ñeel na ma aussi sama làq kullu kuntu lépp lu ma nekkoon taaliban di aji sàkk ko ñu ne ci yàlla am lay sa wala nekkut albuloogu jot lim mun yeti ñeel sama mbébét ndax lépp lu may sàkku si yàlla danaa ko jot wala boog sama mbébét du ma ko jot en ah, fait da nga jot sama mbébét jot na mbébétam wala tumaru نيسان كوكو تروح لولا تروح لولا لالا صلاة القول والتسليم اك مچو على خير خلق يالا نيك تي گن تي من دي في يرونت بي خاني مو گن تي من دي في علي و آلين اك نيوم و صحابين اك صحابام و قطب البرية تي اكي خاني مو قطب من دي في تمو شيخ يانا دي لانو مو قطب البرية يالا قول مچ نيك تي موميت سوگرفه فوبلا قصيده بوبو يم قصيده بي mbébét nag ji ñu ne ci maqaama yoo xam ne war na koo yéeg wax ko ci mm, waxinu mbébét ba mel ni dafay mbébét maqaama yooyu fekk yàlla yéege na ko fa la na ay mbébét yoo xam ne war na yow jaam bi war nga ko mbébét na ci mbébét yooyu ngay mbébét di janoog yonent ci yàlla wa sallam loolay càkkutéef ba bokk na ci mbébét yooyu nga fexe xam yàlla ba doo ci am benn sikk am xol bu leer naññ bu mel ni xolam bi mu nekk xol buñ xam ci xam yàlla ngay mbébét toujours rek xam yàlla yi di feeñ ci sa suuf maanaam say cër ngay topp yàlla waaw ci lu feeñ ci lu nëbb di jëfee chariatu bu baax xam yàlla feeñ na ci sa suuf yi xol rek laa wax de bokk na ci ay mbébétam mm. Mm, yi nga xam ne mu ngi ñu ne war nga ko mbébét mooy ak dañ ci yow. ci sa xol sa xol boole ragal yàlla te di ko yaakaar waaye ragal rek waaw kooku bu yàggee mu andi la naagu ci yërmaan naagu ci yërmaande yàlla waaye yaakaar yaakaar rek bu yàggee mu andi la ñeme yàlla nga boole ragal yaakaar nag di toroxlu yàlla ci say jaamu yàlla ba muy feeñ say cër ak say eh, jëfin bokk na ci li li li muy mbébét mooy nga fexe am xol bu sell haji makka ziyaare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam maqaama yu kawe waaye bokk na ci li mbébét mooy toujours deel ñaan yàlla yàlla musul na ci ay ay añaan ndax yàlla mos mosu yónni benn yonentu rek lu mooy defal na koy noonu moo ko zaalika jaxal naa li kulli nabiin aduwan shayaatina insi wal jinni yuuxi baaduhum ilaa baadin zuxrufal qawli gurura yonentu bu yàlla mosu yónni wutal na koy noonu yoo xam ne dañuy dajaloo ku nekk di taaral ay waxi nar yoo xam ne dara du ci dëgg rek rafetal ko ba mu rafet rek sànni ko ci kaw yonent boobu ngir nit ñuy bañ ko loolu rek mooy seen ngandaay bi gën a mag mooy waxi caaxaan bokk na ko noonu wali yi noonu la ñuy dund wali yàlla bu mosoo a feeñ rek yàlla boole na laak ñuy taaral ay waxi nar rafetal ko ba mu rafet rek sos ko dal di ko askane wali bo baye mom dund na ci lo xamne ne kenn mosu koo dund ndax lu dul rek den nga ëmb na wax nañ ko ko te xam nañ ne goor doom mo tax di ñu ko ko mu ne mu ne mu ne xamal nak ne den ñaan yalla la musul la ci ay ajaa ñaan ndax ñaan baaxut mu ne di di la mbébét lo ngay jangale ànd ak xol bu sell ku la wax jangale nag moy jangal ndax jangale jang ko jitu den nga لولو نريد الاسلام استنت توفيقي الا بالله علي توكلت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته